delloo la kàddu gi ñu jàkkaarloo ak kii di sëñ Abdoulaye Diop Bichri mi xam moo diggee woon euh, terrain yi euh, nee na ëllëg incha allah dana yebal ndaw mu indi ko ci plateau bi euh, nee na ma wax ko Mohamed pour ñu xaar ko nee na dañuy waxtaane tey boo xam ne ku jullit rek war nga ko sant rawatina nag kuy taalibe murit ndax moo tax ñu xam sëriñ Touba moo tax it ñu mën a jariñu ci sëñ bi moo ñëwoon it yoon wi nga xam ne ci lañ war a abu pour làq ngërëmul sëriñ Touba muy ak taalibe kooku mooy ni ko peex waxee rek daa maam say Ndiaye maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp yàlla nu ko yàlla fayal euh, jëmm la joo xam ne nag ni nu ñàkk a xamee sëriñ tubaa ñun doomu aadama yi noonu la ñàkk a xamee maam Cheikh sunu borom bi ko bind rek moo ko xam ni suñu borom rek xamee Serigne Touba donc noonu la sunu borom def yal kii di maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouride moom rek a ko xam terewul nag am na lu ñu xam ci moom fas yéene euh, waxtaane ko tey ci guddi gi nga xam ne nii mooy guddi guddi xumbute dagan ndax yaakaar naa ne tey laato bi beneen affaire lay doon ndax ki ñuy waxtaanee moo mel noonu tey xumbute dagan la euh, ma ñëw nag ci boroom xam-xam bi nga xam moo ko fas yéene waxtaane di gëstukat boo xam ne gëstukat émérite lépp lu muy wax rek ci yoon la ko teg te dafa ko gëstu ba mu leer naññ mu door ko xam-xam rek lay waxee kon tey xam-xam dana feeñ fii ki ñuy waxtaane ku ko xamuloon da nga ko xam ku ko xamoon it da nga xam leneen loo xamul woon ci moom ablay ki ñu waxtaanee euh, cosaanam maanaam ci gan giir la bokk ci wàllu ndey ak ci wàllu baay bu loolu weesoo fu mu jaar ci wàllu njàngam euh, bi muy wër Serigne Touba Cheikhul Khadim boobu ñaata at la am lu nit muy wër Cheikhul Khadim fu mu njëkk a gisee ak ku tedd ki ci Zahir nu gisee ba demee euh, bi mu gisee ak sëriñ bi itam ñu mu fa fekk bu muy gisee ak sëñ bi ñu mu fa fekk nu mu leen fekkee it ñu doon a ñëw nag ci fu mu jébbaloo ndax euh, foofu la wane nag moom mooy kan kooku moo Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñu njëkkee laaj yi ci laaj yooyu laataa ñuy xóotal nag yeneen question yi ak ñi nga xam moom la ñu bokkal plateau bi jërëjëf alxaaji abdullahi lam dégg naa lool ci ki ñuy waxtaane tey ndax cofeel gu ma am ci moom sopp gu ma ko sopp turam a ngi daagu ci sama njaboot dama koo bëgg muy maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin kilifa pour waxtaane ko mag ñi dañoo wax ni faaw nga waxtaane ñeent ba ci juróomi jiim genn jiim ji mooy juddoom pour nu xam ko beneen jiim bi mooy jàngam beneen jiim bi mooy jëfam beneen jiim ji mooy jaamu yàllaam faaw nu waxtaane ko jeneen jiim ji mooy ay jëfam kon dinga wax jëfam wax jikkoom wax juddoom wax jàngam wax jaamu yàllaam nga njëkk ma laaj nag juddu maam Cheikh Ibrahima Fall juddu bu rëy juddu boo xam ni géej ak doroobe ñoo ko séq mag ñi tey la ndaw ñi xamatul démb meen mi nga nàmp waaye démb mag ñi dañuy naq sa meen mi nga nàmp nu xam ne yow gor nga doo wor doo dollu ginnaaw doo njublang doo wax loo gëmut doo tappale yooyu dañ ko daan xam ci juddu ak weer mi nga nàmp mag ñi daan nañu wax diw dafa nàmp ci meenu seey walla daa nàmp ci barget wala daa nàmp ci doroobe walla ci jaafuñ walla ci géej wala dafa nàmp ci jax réew ay tur yu bari la ay néeg la woon ci meen lañ koy nàmp ki nga dem tey nag day géej ak doroobe yàlla dogal alaaji Abdoulaye Mbaye Pee wax na la ko léegi dammel Kayoor xam ngeen ni faal la woon ñoom ñoo ko daan moom Lat sama maam la man miy wax li ko ci boole ndayam la gone Latiir waaye ñoom paalin gi ñoo ko moomoon kon maam Cheikh Ibrahima Fall bu toogoon ci biir kër baayam wut li ñépp doon tiitaroo di néeg bu rëy ak nguur buur lay doon waaye yàlla képp a ko ñor mu war ginnaaw askan wu rëy woowu wéy juróom bu góor Mouhamadou Roqaya Fall la tudd Mouhamadou Roqaya Fall Roqaya Ndiaye ko jur mu nga fekk baax fu ñuy wax wàqi baaye Mouhamadou Roqaya Fall fekk baax jabi jabi Fall ndaayam soxna bu Ndiaye fekk baax fu ñuy wax njare Ndiaye njare njare yi ibnu Darda abo Dardai, yi mooy seen maam aboo darda saaba bu mag la ci la ñu sëtu maam Cheikh Rahima Fall mooy mbokk sëriñ daaru Assane Ndiaye dinañ ci dem ci kanam sax jëlante nañ ci njaboot ba jaxasoowaat danoo bokk njare njare njare nag démb di askan woo xam ni Nyepelin a leen bàyyi xel ci man alquran bàyyi leen xel ci juddu bu rëy bàyyi leen xel ci seen jikko yu rafet foofa la ndayam fekk baax maam Cheikh Ibra Fall feeñ kon ci diggante sunu maam Serigne Mouhamadou Rokhaya Fall ak sunu maam maam bu Njaay mu ngi gane àdduna atu 1855 ci li gën a not moog Seydil Xaaji Malick ñoo bokk menn at mun a ganee àdduna ci Serigne Touba sëñ bi mage leen ñaari at wala ñett kon 1855 jàpp 6 ci la maam Cheikh Ibra Fall feeñ ci ture Atoumane Fall ci digënté ñaari neeg yi mala wax yàlla dogal neegu nijaayam ñoo ko jàngal ay borom xam-xam yu mag lan woon ñu man alquran mu jàngee ci neegu nijaayam alquran ba tu ko mokkal ko mokkal gu rafet dama bëgg tay mu leer ni kuy làmbatu doo mën a xam ni sëriñ tuubaa yor njariñal jaam ñi kuy làmbatu xamut lool kuy làmbatu doo wax ni garab bu la sutul du la mën a may ker sëñ bàmba rek ma sut moo may ker ku jangul mënoo comporté wok ni nga comporté wo seigne touba ba nek babul muridiina kon da jang alcorane ba wat ko ba tafsir ko ba am ñum ko tafsiral firi len alcorane jang majalis xam-xam ba téré yi ñu naw naaw ba saani mu jang ko nek nak ci wër Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul juk nak ni garab sulum sutul du la mana may ker ma ngi seeti yaakaari jamni seet googu nag wax yi bari na ci lool xam ngeen maam Cheikh Rafal dafa teel a ñàkk wéy juróom góor sëñ Mouhamadou Rokhaya Fall bi ma la wax léegi dafa teel a wàcc mooy di taawam sëñ Saaliwu Fall borom daarul xafuur a topp ci moom ñoom ñaar ñu bokk ndey ak baay bi seen baay wàccee liggéey seen wéyjur wu jigéen soxna maam Zeynabu Njaay ñu jox ko góor gu baax ca Belel Jóob tudd sëñ Isaa Alima Jóob moo ko denc am ci doom ju jigéen ju baax soxna jee Astu Jóob la tudd rakki maam Cheikh Rafal la ak sëñ Saliou Fall boroom daalu Xafoor ñoo bokk jenn weer seen rakk jooju mata dem kër ñu may ko sëñ Daaru Assane Ndiaye mi ma tudd léegi mooy juróom-benneel bi taalibi sëriñ Touba bi yoonu murit juddoo ci mbakke Kajoor ci weeru koor bisu aljuma ni tey tolloog ñaar ci fan ak juróom-ñaar ki njëkk a jébbalooy sëñ Adama Guèye ci aljuma ji la jaayanteeg sëñ Touba ba mu jugee ka ca topp mooy sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye ka ca topp mooy sëñ Massamba Diop Saam ñett ñee jébbalu ci aljuma ci sëñ Bamba xëy ci gaaw bi di samdi sëriñ ndaam Abdourahman loo topp ca li tax ñett ñi njëkk koo jaayante daa demoon yónneenu sëñ Tuubaa ca mbaakol bi mu ñëwee mooy ñeenteel bi taalibe këleen juróomeel mooy sëriñ Mouhamadou Gay jamo yi këleen juróom benneel mooy sëñ Daaru Asan Njaay mi ma tudd ña de topp door caa topp sëñ Ahmadou Faa Jama Ñang boroom kër Ñang jaar ci sëriñ Ahmadou Ndumbe Xabbaan jaar ci Serigne Mbacke Bousso sëñ moor Ndiaye tàggaar noonu la yoon wi dolli ko ba tey fi mu toll mu toll fi kon sëñ Daaru Assane moomu di juróom benneel bi taalibe Serigne Touba bi yoon wi taxawee moo denc soxna jee at su Jóob rakki maam Cheikh Ibra Fall ca la am njaboot goo xam ni maam Ousmane Ndiaye ca la bokk sëñ Modou Assu ca la bokk soxna Bousso Ndiaye ca la bokk soxna Bousso Ndiaye ñu jox ko sëñ Balla Coro rakki Serigne Touba sëñ Balla Coro sëñ Cheikh Coro ma ca ndara bokk lépp soxna Coro maro sa Jóob mo len jur sama mbokk lañ ca la jor mo len jur rak señ Tuubaa la sëñ la Coro denc ko am ci señ Abdou Mbàkke Mbar ak señ Mbay jaxal kon mam Cheikh rafale mbokum Senegal yalla dogal bi mu tolle ci jang mu jang fi domi soxna yi jànge ba pek téere yi dal di wax ni nak dama bëgg dem ci pratique dama bëgg sét ki yalla jox mu wara dimbali jam jaam wutu yenen tu bi alayhi salaatu wasallam ndax ku dul ku àgg ci yàlla man ma caa àggale du ma la topp ca la génne nag di ko wër wër ji nag bari nay wax lool am na ci ñoo xam sax ay xoraafaat lañ ciy wax te demewul noonu yéeg ci garab daanoog ray jaan ak yooyu yépp demewul noonu maam Cheikh Ibra ku civilisé la ku am xam-xam la ku rëy judd la ku amum jàng la ku bëri ngor la kooku du def yu doyet yooyu déedéet dafa jug di wari sëñ Tuubaa sunu borom tegtal ko ko boo demee ci sëñ Moussa Ka nga xam ni source la ci yoon wi encyclopédie la nit soxlaa gëstu bind na ci moom sëñ Moussa Ka moo waxal boppam ni ko maam Cheikh Rafal nettalee jébbalu bi dani mas nay xibaar ak jébbaloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni bamba moo moom raasi ko jox ko say pexe loolu ak jébbaloom bay wax ni yàlla mi moom moo ko ni bamba moo la moom ñaari moom mën naa ma yàlla moom ñëpp mais moo ko tegtal sëñ tuubaani ko kii laa la féetaleel moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wi ab muriit di aw baraw pexe mariit ba am ngërëm bari muriit te dootu ree di tex texi mu daldi dem tay ba daqaar ngir dégg ba di fa xaar seet na sëriñ tay ba daqaar cim njàng lay xamee pexe mu tëdd guddi listaxaar bët set mu xëy ba tisbaar Serigne Makhtar Touré fa jaar leeram nga wan ko luy pexe Makhtar Touré nga yori cuur yenn ko jëm Mbàkke Kajoor Serigne ba yónni ko ca buur Cheikh Ibra topp cay fexe mu gis fa Cheikh aadama Guèye sànni mbiram daal di ca ngoy mu wan ko Bamba mbër mu rëy sëriñ ba nan ko foo fexe mu wax ko tegtal ya fa moom Serigne ba wan ko la fa moom mu xam ni gis na ka ko moom mu daal di fopp mbiram joxe ma wax la bis ba ndax mu wóor ñaar fukki fan ci weeru koor bisub di beer lembir mbir ma wóor faal njaga yaram yaare yi pexe yoon waa ngi bi dem wax nañ ñi rakam sëñ saaliwu fal borom darul xafuur moko ko njëkk a signalé ku rëy wilaaya la sëñ ko ku bari batin la ku am gis-gis la ku daan ay jinne la jinne daran nañ febar dem bu di fat sëñ saaliwu fal ca darul xafuur mbërum yàlla la mok Cheikh Ibra bokk ndey ak bay moo topp ci mam Cheikh rafal bimu ko juroom ñaari at juróom-ñaari weer bokk ci àdduna moom sëñ Saaliwu Fall soonu na ci daarul xafóor nii taalibe yi wër ko amoon na nagam wu ndaw sëll wu ñuy woowee saa daaru nag wi daa ñëw dañ daal di dañ suuf si juróom-ñaari dañ mag ñi di ko bëgg jàpp bañ mu àgg ci kaw maam Saaliwu Fall mu ne ah doom bàyyi leen ko juróom-ñaari dañ yi mu dañ mu may xamal ni juróom-ñaari weer ma dese ci àdduna ma dem àjjan koo koy rakki maam Cheikh Rafal ñoo bokk lépp bi sëriñ Tuubaa ci tukki bi 1902 le sëñ Bamba 11 novembre bi bato bi costee waxtu 10 h ci bëccëg mag ñi di sentu sëñ Touba ndax dina ñëwam ñëwul ndax tubaab ku mu yóbbu génne la say mbokk sept ans est-ce que woor na sëñ Touba ñëw na. toog danu ba 16 h benn tubaab wàcce ben échelle dal di taxaw ni kan moy Cheikh Sidi Anta Mbàkke borom gaawaan ak Daru Salam mu ni maa ngi mu ni ko sëñ Bamba nee nga ñëw wuyu ko ñu seet xoole daal ni sëñ Bamba ñëw na. daan Seex Anta fekk sëñ Touba ci bato bi. nee na bi ma waaxoo ci bato bi dugg ci caisse gi fekk seigne touba mu sol mbaxanam ciuru cara fete peng gaddu fulkul mas'un ak kamilu alquran def mbaxanam ciuru cara kawar gangi ngi ci yaram bi nuru abdullah hat jëm la jo xam tunji dafa jip di nuru seigne Modou mustafa ak seigne murtala suy wax baat bi da baat nuru seigne fallu borom di sam den bi day rir ngir baati di nuru seigne saliw borom ndoka ñuulaay bu rafet di nuru sëñ son yi boog sëñ Abdoulaye borom dër bi bari lool baatin di nuru Seex Muhammadu Lamin Baara rafet lool di nuru sëñ Basiiru tuuti lool te te jeex ci borom di nuru sëñ Abdul Xaadir borom Baxdaad. dëgg dëgg na kooka laa fekk ci bato bi. dëgg nuru lool sëñ Ibrahima Mbacke ak wilaaye ji nee na mu toog féete penk bi maam Seex antaraam jox ko loxo mu ne ko seex seex mu ne ko Mbacke mu ne ko namoon naa leen mu ne ko mu ne ko rusuma. sama taalibe jaar ci sama mboor xool fi ma jaaroon du ngeen ci fekk lu rusloo sama taalibe Seex Anta mu ne ko Mbàkke mu ne ko juróom at yi ma def ci géej gi mësumaa julli lu dul ci bopp waxtu lay jullee njàpp mu tooy laa ko jullilee seex mësumaa saalib sama digganteeg sama borom sama digganteeg sama morom seex mu ne ko mu ni ko war naa tubaab bi ci géej gi loo xam ni ba àddunay tukki duñ ko nettali seex mu ni ko Mbàkke mu ni ko waat naa wàcce naa wàccaaleel képp ku ma yaakaar tey ëllëg jënu jëm 1902 la lolu xew waye bi bato bi costé li ci am solo moy mag ñi dañ doon wax ndax sëñ bi ñëw naam ñëwul sëriñ Saaliwu fall borom daalu xafoor mo ni beurep bi midi jot ni sëñ Bàmba ñewna ñu ne ko foko tek mu ni kenn ëppuma wilaya wilaya ju toll ni ëppuma ko ba sama tànk di laxasu ci suufu Dakar yi te ci suuba ak legi fu ma tegee sama tànk bi muy laxasu ma xamni kon sëñ Bàmba yaakaari jaam ñi moo mën a ci biir bato bi di laxas sama tànk moom mu ëppee noonu wilaaya sëñ Bamba ñëw na kooka la maam Cheikh Rafal neyal ñuy bay lu mel ni ñaxu sal guuf mu ni maam Cheikh Rafal ñaxu sal guuf bi mu ngi may yëgal ni sa sang bi day ñëw na bay woote maam Cheikh Rafal wër ni kooko ma kooku laa fi doon xaar amatuma yitte lul ci kooku di ko wëree nu nekk nag dem na fu ñuy wax siit lay kan fanaan ci armeel yi di wër sëñ Tuubaa ndax nee na toll naa ci jamono boo xam ni bu góoru yàlla yépp jaamoo yàlla ba guddi ma xool mboolem seeni tuyaaba du ma gis kenn ku ma ci mën a ëpp wilaaya pour yilif ma ma ki may seet gisaguma ko dëgg la mu génne siin lay kan dem Badar Gueye jóge fa dem ca ñuy waxal sëñ muttu fa ture door a dem bay di daqaar tay ba Dakar ba mu ñëwee tay ba daqaar fekk na fa sëriñ nee na fa ab diir di liggéey ba bis mu koy defaral mbaar waxtu yoor yoor ku ñuy wax sëñ Maxtaar Ture jaar fa sëñ Bamba yónni woon ko naka la ko maam Cheikh Rafal gis daal ni jigéen su wannee lor mooy su ëmbee su la rombee di nga xam ni biir bi am na lu mu yor a doom koy xamee ci jigéen ni ñuy xamee ci nitu yàlla ni am na leeru yàllaa ko raw nit bu naanee ci leeru yàlla bu nee tëll ci jëbi lay feeñ doom daal ni kële daal sorewut ak ki may seet daal ni cëpp ci suuf wax ak sëñ Maxtaar Touré sëñ Maxtaar Touré ni ko damay demub yónneen waaye maam Adama a ngi ñëw xaar ko dina la wan sëñ Touba fi nu jóge sëñ Adama Gueye ba mu ñëwee maam Cheikh Fall naka la ko gis ne ko wóor na ma ni fa nga jóge kala def nii mat na ma sëriñ damaa bëggoon nga yóbbu ma ca ki la def nii ndax mat na ma sëriñ maam Adama Gueye ni ko dëppaguma léegi ndax damaa war sama mbaam mii di màggaalali Serigne Touba lu jëm ci liggéey bi te du ma dëbb léegi soo ma mënee xaar nag su ma dëppee yóbbu la ci ki ma def nii maam Cheikh Fall ni ko maa lay xaar ba mu dëppee ñoom ñaara ànd dem ci Serigne Touba Xaadim Rasul te li gën a yéeme dañuy sëñ Adama Gueye feeg gisaguma sëñ Touba jàppe naa la Serigne ba keroog ma koy gis ba ni mu àndeek moom ñëw ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñëw boobu nag wax naa la bisu dibéer la dimanche la agsi ci sëñ Touba. sëñ Adama Gueye bi mu nuyoo sëñ Touba ni ko àndoog benn ndonga mu ne ko ankay am na ko ma àndal ñëwoon na topp ma ni naa ko yóbbu ci ki ma def nii sëñ Touba ni ko kenn attanu ko ku dul man naag si maam Cheikh Rafal ñëw sëriñ bi waxanteeg moom seen waxante booba nag am na lu mu laaj sëñ Touba nu taalibee tooge ci wetu sëriñam sëñ Touba ni ko waru koo ñooxu lool waaye waru koo sori lool ndax su ko jooxoo lool dootul teggin su ko soree tam mu war koo jox day yokkamti ko di xëcc du teggin mu ne ko ndax ab sëriñ war naa yebal taalibeem mu koy wërali dara taalibe bi ñàkk koo gis di dellusi si sëñ Tuubaa ni ko déedéet sëriñ bu mat sëriñ bu yebal taalibeem ci néeg di ko wërloo dara da koy bir ni la mu koy yónni am na fa moom tamit du ñëw mukk fekk indiwul loola te loolu dox na seen diggante bis sëñ bi noonu na ko Ibrahima Fall jox ma làmp bi ci néeg bi mu dugg ci biir wër ko wër gisu ko sëñ bi ni ko Ibra Fall da kaa gisu la waxu ko déedéet de dañu ko léegi ma gis ko ko waxee la daj ci làmp bi indil ko sëñ sëriñ bi wax ko ni ana loo bëggoon ndongali maam si Arafaal ni ko damay wut sëriñ bu àgg ci yàlla man ma cee àggale lii may wax nag mu ngi ci téere bu ñu wax mi nanu baaxil xaddiim bu sëñ Basiiru Mbàkke bàyyi sëñ Muntaxa dëgg la ñii la ko nettalee te Cheikh Ibra fekkante ak ñoom ci jamono fekk nañ ko mu liggéeyal seen wéyjur te maandu nañu ragal nañu yàlla am nañu xam-xam sëñ bambalin jur sëñ Basiiru nii la ko nettalee dani ko damay wër sëriñ bu àgg ci yàlla bu ma mën a àggale ci yàlla bi mu koy wax lii sëñ Tuubaa ñaar fukki at ak juróom-ñaar la am ma ni 27 ans la Cheikh Ibra Fall am wax wax jii sañ Tuubaa damay wër ku àgg ci yàlla ku ma mën a àggale ci yàlla ku dul ku àgg ci yàlla man faa àggale ca yàlla soxlawuma la moom laay wër sëñ Tuubaa ni ko fekk nga moom laay wër ma mu ni ko loolu de man naa nekk waaye nag man maa topp leeruk sama boroom mu may tegtali bërëb ba andi ma sa kër ma gis mu sowee fi te gisuma mu génn sa kër soo ma joxoñee ni ma fii la jaar yitte ji ma am ci yàlla rek laa ko am ma génn toppi ko yàlla la moo ma tax a jóg waaye feeg wanoo ma fu mu génn sa kër fii laay toog di la liggéey bi ni ko kon lo fi amul ci yow la mu ne ko lu fi amul dafé amul wala nga ñak ma ko yéene waye lu liggéey di may dina ko am sa kër la dogu and ak sëriñ toba fofé ca Mbàkke Kajoor la Mbàkke Kajoor fofé la ak sëriñ toba xam nga sëñ toba 1883 ci la taxawal yoonu murit ci ndigalu yanant bi alayhi salaatu wassalam. bi mi jangalé Alfiyat ibn Malik la doon jangalé bisu aljuma dem ba tollu ci baatu faail xam nga faailun day firi aji jëf ji amal dara sëñ Tuubaa mënu koo jàngal di ko firi di wut kenn kuy jëf dara di ko amal ku yàlla mu taxaw ci mënu ko ko firil ndongali mu ne ko may ma ma ñëw daal di fàttu ci biir néeg bi toogaat ab diir mu génnaat agsiwaat ci faayil ji bëgg koo firi mënu koo firil keneen ku yàlla yàlla rek moom moom loolu mu duggaat ci néeg bi ñetteel bi yoon ba nag la wax ni mu fàttu ci néeg bi bi mu fàttoo Moustapha fekk ko ci biir kon njàngale mi ci baat yi dang ci wara genn yo ak ñoom yóbbu len ci yitte ci yalla mu ni tuñ ak tuñ la rasulullahi ak man safahani rasulullah bi qawlihi rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi darsin fakhat yenantu bi moni ma tuñ ak tuñ bis ni ki tey bàyyi baat yi di ci yam ak ñoom waxul nak no bayyi jang waye jang mi nañ ci boole pratique moy fasiyene am yitte ci yalla am yalla sëñ bamba génné na ko xamni man arada ma arat fal yasil bi sayrina képp koo xam ni bëgg na li nu bëgg ñëwal ñu ànd ci suñu dox bi tàllal loxoom nag mag ñi wuy ko waaye bi muy dem ba yàlla dogal ca déwén sa di 1884 ci la jàmbaari yoon yi maam Cheikh Rafal agsi na jàkkaarloog sëñ Touba ba mu ñëwee amatul yitte lu dul liggéeyal sëñ Touba fu sëñ bi nekkee ci ker gi mu ne ci naaj bi lu mu liggéey jox sëñ Bamba tabaski gi mu njëkk am kër sëriñ Touba daa takk buum ci baatam ñëw ni ko may sam xar ba la neexee tabaski mee tabaski ma bëggatuma dara yow rek sama jëmm ji moomatuma ci dara loolu neex def te bi mu jébbaloo ci sëñ sëñ bi dani ko bu fi soxla lu toll ni mbaar ci sama kër mu ni ko soxloo ma lu tolloog kawar kawaru bopp soxloo ma lu toll noonu lu ñu fi gis ci maam Cheikh Rafal nee na bi mu sukkee jébbalu bi muy jóg suuf si taq ci tànkam rot mooy may yi ñu ko fii gisal mbiram yombal am lañ koy xam moo tax noon na Ibrahima Thiam maam Ibrahima Thiam njaareem la nekkoon 1880 la gane àdduna 1890 la ko baayam jox maam Cheikh Rafaal fukki at lam booba nekk nag Cheikh Ibra ba 1930 dund nag maam Cheikh Rafaal 40 ans mais du wax dégg naa ci kenn Cheikh Ibrahima wax ma dégg maam Ibrahima Thiam moo ni Cheikh Ibra nee na ko Ibrahima Thiam mu ni ko Faal. mu ne ko yàlla tëgg na làmbam bisu àjjuma làmb ju xumb loolu bisu gaawu tas di béer yàlla tëgg na làmbam bisu àjjuma mooy vendredi ni tey làmb ju xumb loolu bisu samedi tas dimanche ni ko doom dooma laaj bi làmb ji tasee ku daan mu ne ko faal njaga kana daan mu ne ko nañ ko bàyyi wax ko du ay teggin waaye bi làmb ji tasee yàlla mi ko tëggoon woona ma ñetti yoon ca digg géew ba ni ma jërëjëf Ibra yanant bi gën ci mbindéef fi woona ma ñetti yoon